maa ngi bale ak ci bal ak li tak yeen mbokk taal bi mu yépp nak am na ak cant ci wogi ma yeen won ci ndigal mi suñu tuba digaloon dañ fekk sama ci def def ñu ko bëgg ak nam ko diglé woon lo cant ngop na nga xam na ci sant bu baax ñaan yàggo seq yàgg toxan ndigal ci day ci ngërëmam mu bokk lu sant naa leen bu baax ñu ko bëggoon defee ngeen ko nii. mu hmm. ngi fàttaliku ñu fi indi boole na bàyyi na yàlla sunu borom jàmm yàlla sunu borom. laqad arsalnaa suñu kitaab min qablikum iyaakum an ittaqullaaha yaa ayyuhaa allaziina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi wattaqullaaha mastata'tum yi mu seq haqqa tuqaatihi jafe na waaye mastata'tum ak yërmaande sunu borom dañ na ñëpp. mën nga caa def nga tolloon waxtanu billahi jami'an wa laa tafarraqu ànd ak boole xol yi loolu noonu koy fàttali ndigal suñu borom si may rafetlu jaamu yàlla diggante jaamu yàlla bu nekk ak ma may sa borom sant ci sa digg ak sa morom ñu fàttali ko fàttali it lu ñu mën ko def ci teet tere yi teet teet di teet nga xam ne maa ngi koy fàttali itam jaxasoo bu bari bi diggante góor ñi jigéen ñi CAEK yëpp war nañu jigéen ñi war nañu berante góor ko fàttali fàttali jaamu yàlla yi ñu war ñu juróom ak weeru koor ak ak ak ak sarax yëpp ñoo ngi koy am waaye du ji li yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññ rek waaye ku xam na ko. maa ngi ci sama maa ngi tu borom maa yàlla sama borom. te di ko jégglu tuubal yàlla te jégglu ko te laaj ko ci xéwalam yi tam bu dul jeexale te diglu ko ko laaj kenn jéemoo ko du ko gëna laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaa loolu itam ñu ngi fàttali bis bi nga xam ne sëñ Tuubaa ni ko digal muy gi gàmm nga ñu si bopp boo xam ne da ko daa jëf dina ko dina ko digal noonu koy fàttali bañ ci àggee si koy jàmm ak ñëpp fan dundal ko lu si yéene màggal yonent bi sax ko day sant rek koo xam ne ci mën koo def fa nga def nga ko fa ko fa sa bopp dafa ñu koy def nga fekk ñu fa koy defee te ànd ko ak ñoom ñu mën a doon waaye bisu gàmm nga yemale ko guddi nga ko jëkkoon ak nga ca topp dara jël ko ci jullit ñu sant yàlla bu baax a baax na ci ko sant ñu ci dolli di ko ñaan ci ñu ñuy di ko laaj ko laaj ci xéwal yi ñu ñu u ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jéggalu bu baax a baax ñaan yi ñu yàlla jéggalu loolu foo xam ne sanc sanc kër Sëñ Tuubaa gàmm maa rek juróom-ñett dañ ko fa kër Sëñ Tuubaa am ko jël moom fu ñuy digal naa leen gàmm fa def am fa ñeen daal bi ñu ko ñu kër googu te waaye fu ay ay julli di gàmm rek nga ba koor ñoom te la nga mën te ak yooyu laa laa leen di fàttali ñaar fukki ak juróom it kër sëñ Tuba yi ginnaaw loolu itam fàttali fàttali ko yàlla sunu borom waatu ko ñu gën si musu daa fa ant fa am fiixum am fiixum loolu ñu mu dal fàtte yàlla yàlla fàttali fàttali loolu fàttali ko jot na fi mu toll waxtu waxtu waaye sa ñaan ay si sàkki sarax te ñu naa si tuub donc il faut yàlla wa maa taqaddama ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعدلنا وما أطهروا بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بك من فتنة الماء والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن أصحاب النير وسوء المسيح السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهر رمضان